neex ci man boobu fekk na c'est ma c'était ma première rencontre ak moom waaw c'était ma première rencontre avec moom waaw dama ko natt ci parce que man ay korité tabaski yëpp grande mosquée la koy julé mais mu fekk ma ma tawat tawat bo xamni sumay su may sukk day métti looloo ma téye sama kër ba nga xamni sax euh, ñaar tabaski xaw euh, tabaski ak

li essentiel mooy respectante kenn ku y a une œuvre pour le Sénégal mais li pour le Sénégal ne fait que ànd ak une bonne conscience parce que ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor kon bu Sénégal ñoree ñu les lu ñuy def dañ koy buñ ko ko defandawul nañu ànd ak yéenante jamm ak salam mais mais mais lolu lolu jox ma cër la bu doon sama sago sax moom du du sukk waaw parce que man loolu moom dafa am fu ma ko placé boo xam ni contexte la bu graw a graw donc jarul ma koy wax ci comme def na ko jàll na maa ngi ko ci gërëm di ko sant cër boo cër la lu ma jox loolu xam nga lu muy wane ne kii ku ñu yar la parce que mu mënoon na ko bañ a def te dara du ko ci fekk dama xamoon may kan ba mu nuyu ma sukk man sax def ma gêné woon billahi jox ko loxo mais li mu daf ma j'ai compris que ni ku ñu yar la parce que cër lay wone foofu bu ma jox ma ci gërëm di ko sant ñaanal yàlla moom ak jëkkëram yall nañ yàgg na leen parce que Sénégal gi la Sénégal yi moo ñu ñor donc euh, yooyu gis naa ko fa neex na ma trop ba neex na ci man euh, ma jox ko mais tamit fekk fa sama

rendre coco comme il le faut parce que c'est un respect bu je jox ne mais daf ma wan boppam ne carrément il euh, amul solo moom amul considération il s'attarde pas sur les petits détails euh, ça ne signifie absolument rien donc pense que je sax ci loxo je pense pour ma yéeg ci une bi donc c'est euh, déjà un bon li c'est un détail de rien du tout te kooku moom la man la yoonu kenn nekku ci ku ci waxit da nga sob rek mayuma kenn ah lu ne mën na ama ah, mais bon d'ailleurs dama ba léegi maa ngi toog di xalaat lan moo ko waroon indi je te jure je n'arrive pas à le déterminer parce que foo ko wéer du fa mën a xej du fa mën a nekk bu fekkee ni peut-être moom daf ma mere ah war ma woon mere ci loolu parce que quand même am na lu ma xam ci man euh, nekkuma kuy kaf ba nga xam ni nii vraiment fu nekk fu ma taxaw rek dugal ko fa yow defe naa ni liggéey nañ te xam nga loolu ci man man lu ma ne dëgg la ci man su ma nee Sonko ma neex Sonko ma neex keneen nag waaw kay yow mën nga maa seede keneen nag moom moo xam ak yàlla waaw nit man du man du ma naqari quoi wala di regretter

je sais que ni kenn mënu koo dab ci li nga xam ni yàlla may na ko. macha allah waaw waaw kay boobu ba léegi waaw parce que bu ma demee foofu déjà euh, li ma woon ci kanamam rek laay mën a jàng. Mm-hmm. Euh, wan na ma kanam gu leer ba pare waxtaan wax dëgg ci la xam nga lii xamu leen ko won man maa ko génne. waaw kay tey bu ñu ma laajoon li tax nga génne ko. Mm-hmm. je leur dirai ni yoonu kenn nekku ci d'abord balaa may commencer quoi que ce soit. Mm-hmm. nit moom booy ànd ak moom tant que réeroo bu sew amul seen diggante doo mën a xam foo toll ci moom moom it du mën a xam foo tollu ci moom vice versa quoi mais y a pas le feu y a pas euh, quoi fouetter un chat da nga bon kooku moom la man la yoonu keneen nekku ci te duguruma ci kenn ku ci jéem a wax billahi wallahi talahi su boobaa kenn mosuma dégg ci coow la mais weñ de yamb dana la ëpp coow ah non mayuma kenn mu dugg ci moom la man la mm. te xam na man xam naa. Ousmane Sonko rëkk rëkk la waaye gis ngeen ak lépp teguwaat na ci or bi Pape ñu ñew ci li nga xamantene moy accident bi nga xamantene ne mën naa ne keroog ci altine bi kenn nelawul ñu ñu nekkon ci kat kenn nelawul ci tiitaange ci tristesse la ñu ñibbee mën nañ xam accident bi ci ban ci ban ci ban côté la woon bi nga génnee ci carte di dem ndax ci péage bi la wala bi nga ko rombee ak lan moko ko causé non je crois que rombon nañ ben péage mhm. mais comme potu administration la won ñom bu ñëwee mën nañ romb régler problème sen jàll ci ki mm-hmm. mais dañu dem daal mm-hmm. xamatuma à quelle hauteur la franchement parce que boba ak légui lu né xawnu fi mm-hmm. donc euh, je peux ne pas me rappeler de certains détails mais limu ci xam té mu woor modi don nañ romb ben auto diko doubler faf euh, nangul daw mu melni ko xam ne day rabâché toujours à notre gauche bobu nak auto bi ma duggoon ak chauffeur bu mën dawal très sincèrement bu won loolu catastrophe moy am mais il a pu su tenir vraiment la direction mhm. ba nga xamni ne nii daluñu ci auto bi mais man dama jek jek rek sentir na auto baa ngi xaw ma da doon naaw xaw dal lu mu def mais dafa joggi tali bi dem ci ko au lieu ñu daanu fi fi ñu jógee déedéet mu daanu de l'autre côté ba jaaxaan diree ko nak

li ma xam daal mooy je me suis retrouvé à l'hôpital euh, te encore yëguma lu dam yëguma kii mais j'avais le corps fatigué Ça dit parce que kii bi dafa def dafa def tonneau ba pare jóg euh, est-ce que wëndeluwul sax loolu laay kii ba pare dal mais bu mu dalee dafa jaaxaan hmm. donc ni ma toogee ci oto bi damay mel ni ko julloo donc loolu dal moy ki mu xaw ma nak nag tuuti dem naa ñu defal ma radio hôpital principal la ñu yóbbu waaw ah, ambulance moom jóge non sapeur yi waaw sapeur mo ñu fa jëlee mhm. yobuma euh, alors il y avait ben espace le euh, santé bu nekkoon euh, à côté mhm. ñu dem ba fofu ñu dal né non non

mais ba ñu fa yóbbu fekk dara jotuma te vraiment dañ ma teg ci puus puus yooyu yóbbuma ma ba foofu biñ ma yóbboo donc euh, ñu seet ma biñ ma seetee daal après ci lañ ma wax ne il faut ñu photo kii quoi ñu jël photo kii waaw mhm. voilà def ko mhm. seet ko bi ñu seetee daal ne bon comme d'habitude, Yotoko, ko ko salle pour entretien ah, ci lañ ma salle je mm-hmm. ma ci ma pendant 3 ou quatre jours quand même mm-hmm. eh, bi mm-hmm. heureusement que trouvé wuñu ci après on m'a laissé sortir